mais Pagaye euh, gannaaw ba nga ñëwee assister match bi lan nga yëg. waaw euh, li ma yëg mooy wax dëgg yàlla euh, nice na trop ku gis lii ni mu demee nii dañ ci am contentement ci sunu soppe yi nga xam ne dañ ñuy wër te mun mënuñu ñoo gis ci lii rek lañ mën a profité xam nga pour gisanteeg ñun. donc fair fair play bi ñuy woote tamit ci biir artistes yi donc mu doon loo xam ne luy dëggu la luy jàpp la ndax lii dafa rafet artistes yëpp daja bokk ndey bokk baay. waxante lu baax mais dañu ñaan rek loolu na nekk loo xam ne lu dëggu lay doon comprendre nga kenn mënul yàq yoonu kenn ah. kenn ku ci nekk yaa ngi sa yoon te lii sa wërsëg yàlla sunu borom dina la ko jox donc kon li am solo ba am solo rek mooy rafetlu nañ li di ñaan yàlla yàlla na yàlla doole jàmm ci réew mi. mais Pagaye dañu dañu seetlu dafa mën a ñëw duggoo ci terrain bi lu waral lool. waaw euh, xam nga nag euh, bi mooy deux ans sax bi mooy deux ans donc daaw bi ma ñëwee am na lu ma jàngat ci affaire yi. donc pour wax ne mag ñi nga xam ne ñoo nekk ŋànk affaire bi donc nañu yemale artis yi ñu ñëpp benn lañu donc nañu yemale artis yëpp xam nga artis yëpp benn lañu bu ñu bu ñu bu ñu jël ñi teg leen ci kaw ñi suur ker du tere feeñ yàlla ku mu jël teg la ci kaw nit mënu laa suul ci àdduna man nag bokkuma ci daraay xëccoo ndax fii àdduna bi am na nooy waxee sax ñu ne ah warul wax lii war a warul woon wax li wala nee ak nee ak nee mais li am solo ba am solo mooy ay nit bu ñu boolooyee da ngay yemale ñëpp ndax ci biir match bi gis nga tension bi maam am na artistes yu mer ci biir match bi donc ba jar ñu ñu wane loo xam ne sax du seen jikko mais mer moo leen ko yóbbee comprendre kon li ci am solo ba am solo rek mooy grand yi ñu seetaat ñu rafetal lépp rek te xam ne ñu ñëpp benn la ñu. mais est-ce que est-ce que jotul aussi bu ngeen préparé lu mel nii ngeen ngeen réunion xam nga ba ku si nekk boo ñëwee xam fi ngay féete. non amul réunion affaire bi xam nga lan la ñoom bu ñu soxlaa ci ay publicité moo xam ndax ay télé la ak lu mu doon bu ñu soxlaa dañ ñuy woo ñun ñu ñëw def publicité àdduna yëpp taxaw di ñu xaar pour ñu ñëw mais boo seetloo sax boo tegee match bi ñu bëri da nga leen di gis te nekkuñu ay mbalax dëgg moo neex yàlla am na ñuy fubal ci terrain bi affaire u blanc la affaire doole la affaire u mafia la ñu bàyyi loolu. sénégalais yi ak peuple bi ñiy seetaan affaire bi soxlawuñ loolu xamal la lañ soxla artistes yi ñuy bëgg a gis di leen gis seen xol di neex kon ñoom li ñu soxla ñun nañ leen ko jox mooy ñu boole ñëpp ñu doon benn ñun artistes yi nga xam ne yàlla moo ñu yëkkati donc bu ñu ñëwatee ñu jox ñu gëdd bi ñu moom ndax yàlla mooy lépp comprendre nga fii kenn mënul suur kenn man nag donc li ma ci mën a wax rek ba mën ko wax mooy ñi ngi rafetlu lii li tax ma koy rafetlu mooy population bi niñ koy dundee niñ koy dundee donc maa ngi koy rafetlu bu baax a baax que nga doon fan si ku mënti doon donc lépp rafet na yàlla na yàlla doole jàmm